de golo golo golo du kañe de. yow yow xamoon nañu woon Simbu Gaynde. waaw maa tay Simba maa maa maami Simbakat yi maa tay Simba Gaynde la na garaaw loolu am ay détail la nga yooyu yëpp mbiri góor la am jaar jaar nga xam ne léppam ay erreur la dara jaaxaluñu si Baye Mandione buy wax erreur la buy dox erreur la lu mu def erreur loolu la mu ne sax man moom mën naa assuré loolu billaay ma tegee benn tànk andeer sama benn tànk bor bi ba def nii benn rek yaa ngi de li ma waroon suma diggante ak bi ak sponsor bi ma jox dara woo junniy xoyantaan faalewu ma leen xam nga lan laa ñu bëree ba pare mu ñëw faama man Modou maa ngi jox ñëpp rendez-vous diggante ah. yi suivre Lutte ñu ngi leen di nuyu di leen ziar dañ fay dalaloon nag réparé mu war a bëri ak yankaaw adversaire nag moo ngi nii toog seetaan na li adversaire wax di réparé yankaaw nag comme olof nee na tungale du teew ñu nat ci ëkk te moom moo ko seetaanal boppam dinañ ci war a mën a tontu dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu ñuy suivre luttetv.com ñu waxtaan ak moom fa la toll ci waajtaay bi combat bi nag le 15 le 21 décembre la. stade Iba Mar Diop maa ngi lay ziar yaa waa Lamine ñu ngi lay dooleel ziar di wax onze billah bismillah inna waliyallah di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di sant suñuy ñaari waajur di sant suñu Serigne seex Bass. di wax Balla sa dundal yàgg fi loolu te wér di nuyu monde entier di nuyu waa Bawol waa Touba waa Mbombay di nuyu waa Bentali gi ñu jógee waa Grand Dakar waa Ñaar Tali waa Aslem xam nga waa waago ñaay bàyyiwuñu fen di la nuyu yow tamit di nuyu sama ñaari gaay man da ko ci mel ni yaroo baax de ak sabala di la siyaar bu wér. nga war a bëri le 21 décembre sa diggante foo toll ci waajtaay bi. waaw war a bëri la réparé le 21 décembre mën nañ ne soreetul quoi. di ñaan yàlla yàlla ñu fa ak jaamu ak salaam chaque jour moom dañ ne mbër mu ndaw du préparé day pare ñun ñu ngi woon ci liggéey bi instant bi lamb ji chaque jour ñun ñu ngi pare dañu tax suñu ngeen dem ci àll bi di bëree ji xaaruñu benn combat ñun pare nañ lamb bu neexoon suba ñu dem bëree ji. tam ngeen mujjee daje fii ñaar da ngeen koo tàngaloon ku ci nekk am lu mu wax ak ni nga fas yéene sóoboo ci wàccaay bi bu ngeen fi jógee ñaar wàccaay bi nu mu doon demee. waaw bi fi jógee dem ci nekk ci lañ waroon a nekk rek. yëgal suñu am di jàmm ne leen am nañ combat entraînement yi moom dañ cee yàgg nekk chaque jour ñu ngi ci xaaruñu ba am combat chaque jour ñu ngi ci entraînement yi. yokkuñ ci dara wàññiwuñ ci dara dañoo neex ci liñ doon nekk rek. waaye ittee ngaa yokk nag ndax ki ngay bëreel jinne la. ñun li ñu entraîné lu entraîné ñu pour réparer dañu entraîné pour làmb entraîné ñu pour réparer kese ndax réparer rek bàyyiwuñu ci làmb waa dafa nekk ci suñ jaar jaar rek ñu war cee jaar jaala. xam nga réparer bu baax. waaw xam naa ko ci làmb champion la rakku champion. ci làmbu rek laa ko xam waaw. dégg naa ko nag muy wax interview bi maa ngi koy seedaan. muy maa ngi koy seedaan muy wax na loolu de. wax la lu lekk nee na man ay damaa dem géej waaye dama jël numéro am jox ko xale bu jigéen loolu su dee maa ko defee yàlla na ma daan. defoo man maa ko yàlla na daan. Lamine ñun ci liggéey lañu nekk ci liggéey lañ gëm làmb li ma ko wax rek teguñu ko ci ay ne kii dalay jaay wala kii ñun tegu xam nga si lan nañ ko teg liggéey am doole ñëw mën a bëre ñëw jaay ko ko daan ko teguñu ko ci leneen. mbaar doole ak bëre nga ko nar a jaay. ma maa ko dàq bëre maa ko dàq xeex maa ngi dégg muy ratatati rek xelam dalul dafa jël combat bu bare xelam dalul fu nekk mu fay wër di wax. nee liy neex ci combat bi moo koy def. du def dara day wax rek. ñeme na la xamul am ci làmb ji. xoole nga ba mu ñeme la. déggoo ma de ay wax rek la am ci ji li ma ko waxoon rek combat bi jël na ko te xelam dalu ci réparé euh, réparé mi ma gis fii mu jël poids entraîné na wow koŋ nga ne nga ne nga ne nga ne xelam dal. réparé xelam dalu ci combat bi. li mu ñëwee keroog nag. bilaay xelam dalu ci combat bi. actif de bi ñëwee. <laughs> day wax rek day teg xel na liggéey ne mu dem liggéey liggéey bu wër kee laamu ji teguma ko fa liggéey. ak dàq ko bëree baar bi suulee ma jàpp ko daan ko teguma ko feneen man. nee na lu fi lëdd rek mu réparé la. mbër mu bon lay daan. xam nga réparé lañu wax mbër mu baax du la daan <laughs> ko kay lu bu yàqu lañ koy def <laughs> waaw. wala yow yàqu ñun yàqu ñu de. bu jour ba du bëree du xeex du daan du def dara réparé du def dara day teg xel rek. problème yi yéen ñaar ñëpp ku ci nekk day jiiñ moom ni pare ni ni ni sa morom parewul yow nee nga parewul moom nee na pareegul. xam la moo taxoon def baax dafa ndénkoon mbër bu ma jox cee dañoo ñëw toog fii nii te man bëgguma ay daraay quoi. wallaahi la li mu wax nii bu dee am na yàlla ma daan man réparé ba combat bi taxaw ba tey lijjantiwu ma fu muy entraîné ma lu muy def man loolu lijjantiwu ma a nekk dama xale la nay dem di bëre ji bëre rek moo a ma wax la loolu noonu. leneen bëre ji fan fan nga bëgg mu dem bëre ji. mu ñëw mu bëre mu xam ne combat bi bëre moo a may ndam mais leneen mënu ko may ndam lu dul bëre luñ ko wax leneen lu mën a bëri am doole leneen mënu koo may ndam lu loolu noonu. daa am ci leneen lu mu nekk. waaye ci lim neex lim yaakaar neexul foofu baaxul. <laughs> ci mystique la teg combat bi. fi mu teg combat bi baaxul na dem liggéey am doole ju wér kéng bu surbaalu teeng laa koy tegal lu xottee ko combat bi du yomb de lu leer laa ko bëgg mu xam ko ñëpp dañoo ñëw di ñu xaar combat réparé de Yankaw Junior foo dégg moom la ñuy waxtaanee surbaa dañoo war a ñëw wane loolu noonu nag. Mm. <laughs> te loolu nag du ay kañ ak kañ doole ju wër kéng contact ba onze foofu lañ ko teg teguñu ko feneen ñun. waa Guédiawaye yëpp ngi ci ginnaawam Balla Gaye de mag gi marle ñoom ñëpp instant bi dañoo bëgg mu defaral. ñoom ñëpp jët pidd ba la ñuy yem wàllum teer la kenn du dugg ci géew ba boobaa koy defaral tas Guédiawaye. Guédiawaye danga koy tas. rang muy gaaw kay fa laa jógee woon fa laa delluwaat na keneen taxaw xaar. bi baas fa nga mujj. Guédiawaye laa jógee te fa laa jëmaat. te maa fa daan bi baas. Cheikh Kayma laa fa daan. ñëw jël réparé. ñëw jël réparé dama koy defaral keneen rangaat. kuy rangaat après. ma effacé baal bañ jàll ci lii rek. la nga bëgg a jël. nañ wax yaa jarul ñuy wax quoi wax jarul mu bëri réparé mu ne suñ kanam dañuy ñaan yàlla suturaal ñu ba booba rek. yow nag yaa ngi gën sa bopp problème te ngaa yem ci réparé te bàyyi waa Géejawaay ba pare. déggoo waa Géejawaay ñoo génn si ne combat bi combat Géejawaay la ñu nit combat bi combat Bawol la dañuy woo waa Bawol ñu génn di leen seen doom. seen rakk moo am combat ñëpp ngi sama ginnaaw combat bi gis naa fi ñu ko teg dañuy ñaan bu suur baa yàlla ñu yàlla suturaal rek. mobilisation fan nga ci toll côté mobilisation. waaw mobilisation bi di waat suñuy supporter bu baax a baax waa fan club xam nga di ñu woon ak ñuy jàppale ci combat yi xam nga di leen wax ne dañoo am combat bu am sens ñu nekk ay xale ñu jël ñu tëgal ñu spécial kon bu suur baa bu ñëwee rek. dafa war a am changement quoi Yankaw moom saa bu ñëwee ñu xam ne ñëw na di ci woo ku ci mel ne grand Mbaye Fall suñu grand Lamine Diagne dañ koy woo ci combat bii nii ah Mass borom ma ci téléphone yi di ko wax maas jàpp leen ci combat bi Galso Touba ñu ngi koy woo ci biir ah grand Sendel sama nijaay Yankaw sama turando ah, di leen woo ci combat bi nii waa aslem sama mafia mafia yokkal ma jaal bi di leen wax ne combat bu am solo lañ jëm waa Bentali Grand Dakar baaw ñu fenn sama maman Khady Sarr tamit maa ngi koy sant di ko gërëm ndax mi ngi ciy jàpp chaque jour xam nga combat bi ni ma fonk ko di wax ne yaay booy yéen yépp gis nañ ko di nuyu ko ak ay doomam ñoom papa ñoom nene ñoom mami di leen wax ñu ñaan rek combat bi dina baax incha allah di woo sama waa dëkk waa Touba waa Mbombay di wax ñu ñaan maam Saliou sama jëwrin maa ngi koy wax mu yokk ñaani faal yaaram di wax sama toosi la tamit Cheikh bas mu yokk ñaan bu baax a baax sëñ Modou Mamoun di ko wax Balaye sa tamit ngeen yokk ñaani gis nañ taxawaay ah tamit sëñ Modou Rokhaya Fall tamit ñu ngi koy woo ci combat bi nii ñi ñaanal dafa bëri di leen wax ñu yokku ñaani rek gis nañ taxawaay si ñoom ak bëgg-bëgg yi di wax ne réparé réparé yaa ngi kaw si ñoom tudd dëggantaan sax xaw ma nu mu tudd man lijjanti ma loolu xamoo tudd xaw ma nu tudd Lamine làmbu bëre lañ wax ak xeex dem liggéey am doole ay xale lañ làmb waruñu ko teg fudul foofu noonu li ñu def suñu yaram yëpp ay muslaay la man gëw ne sëriñ mooy daan laam kenn du takkal mbër ba nga ñëw bu ma ko mu daanu. fu mu dem baax na ñun Sénégal fii lañ toog du nuyu nag waa Kaarang waa Samb waa Sogone ah waa Baara waa Amdalaay xam nga waa Baara ñu ngi leen nuyu di leen woo ci combat bi surtout waa waa Samb Gueye ah. sama ayse bi ayse Sandial maa leen woo ci combat bi bu baax a baax a baax a baax ku ci mel ni Njaga bu yankaw baay Abdou Pape bu yankaw di wax de bi seen combat la gis naa fi ñu toll Lamine combat bi. daf ñoo ñor. booy suba ngoon mbër jugal entraînement combat fi mu ko teg. ñu nekk sama ginnaaw sax ñoom bëgg combat bi ku ci mel ni yaroo baax de ku ci mel ni sabala ñagas de sama doom nday chaque jour ñu mbër jugal nekk ci terrain yi ñun làmb gëmuñu ko loolu xam nga lan lañ gëm man rus naa ñëw ci làmb du ma am doole wala ma ñaax physique man loolu rek laa jooy su ma paree ci loolu rek jàpp naa ne pare naa réparé lu méttee koy xaar lu teeng mbër lu metti lu teeg moo lay xaar te liggéey rek moo la ko mën a may jël nga combat sa xel dalu ci nag li nga xam ne fi nga dugg le retour de baafaal bi la ñu wax te dañ ne bala ngay torojo faaw nga morojo bala ngay riigo faaw nga raago te loolu lépp dafay jaar ba jàll cinéma bu pare nekkul bu ndagaaro yankaaw nga ko seeqal cinéma bu pare nekkul bu ndagaaro jasaaga baafaal bi ngay am fii nii lu mettee lay xaar xam golo golo du kañe de yow yow xamoon nañ ñoon simbu gaynde maa tay simba maa maa maami gaynde la na garaaw loolu am ay détail la nga yooyu yëpp mbiri góor la yaa ngi góor foog nga jaar jaar man simb naa ba tay fu ne Pami Ndione mi nga xam ne léppam ay erreur la dara jaaxaluñ si Pami Ndione buy wax erreur la buy dox erreur la lu mu def erreur loolu la mu ne man sama lépp erreur la sax man moom mën naa assuré loolu billaay ma tegee benn tànk andeer sama lijjantiwuma junniy xoyantaan faalewuma leen dégg nga ma de téeméeram lijjantiwuma leen man xam nga lan laa xelaat ñu bëree ba pare mu ñëw faama man Modou Lo maa ngi jox ñëpp rendez bu diggante xoyantaan ak Baye Mandione ci Gambie ah